mbedd ngir wone ni d'accord ñu nu ñu yokkee prix électricité bi prix courant bi daanaka démbu police def leen maté dóor leen ba ñu bëgg de sama naataangoo ne ah lii de metti na ndaxte boo demoon démb ci place de l'indépendance force de police yu bëri ñoo fa nekkoon daanaka mooy ñu sa manifestant yooyu ñu nekk foofu bëri woon na lool dañ doon gazé manifestant yi jàpp leen dugal ci panier à salade bi yóbbu ci commissariat sama naataango bii di journal sama naataango bi sama naataango ne lii de doy na war ñu laaj ko lan moo tax mu ne lii dafa doy war mu ne ñu ah yow gisoo recul démocratique yi nekk Sénégal daanaka démocratie Sénégal ñu ngi koy salfaañi force de police yi wàcc ci mbedd mi di dóor ay nit gauche droite di jël ay lacrymogène di tëmbal. dem sa ba réprimer la presse ñoo xamante ni dañu doon def seen liggéey lii nii bu la doyul ci wàllu recul démocratique lan moo lay doy lan moo lay doy ci wàllu recul démocratique sama naataango ne ah lii de man musuma ko xalaat Sud Quotidien jël xalipam ne police daanaka joué na au gros bras daanaka kon ni ko yenn gros bras yi di ko defee ci yenn seen yi daanaka police loolu la def di sànni gauche droite xooluñu lu ñuy def ceex na bokk ñu jàpp ko caat ñu jàpp ko ak ñeneen ak ñeneen jàpp leen dugal ci oto bi yóbbu ci police sama naataango bii di Walfadjri ne ah lii de wane na ni daanaka président Macky Sall jàng na ci Souleymane Ndéné Ndiaye Souleymane Ndéné Ndiaye yàggul ni jël na kàddoom ne état dafa war a wane dooleem kon président Macky Sall démb loolu la jàngat waaw moom lool la doon tari sama naataango ne ah lii moom doy na war kii di Souleymane ne jàngal na président Macky Sall ñu laaj nag lan moo tax démb waa groupement mobile d'intervention ñu nekkoon sur le terrain dem ba jël ay lacrymogène di ko dóor ci journaliste yi loo xamante ni daanaka kenn musul xalaat ci mim réew nit mën na def li nu mel sama naataango ne ah waaw yow boo nekkee chef nga jox ordre say nit nañ tiire ci journaliste yi mais duñ ko def loolu lañ def Bamba Kassé ne loolu loo am Bamba Kassé bi mu jëlee parole ne man may secrétaire général SYNPICS maa jiite syndicat journaliste ak professionnel de l'information de la communication mu ne man lii jaaxaluma jaaxaluma ndaxte commandant GMI bi moom moo jox ordre nañ def li nu mel waaw koo xamante ni moo jiite yëf yi bi mu demee ba jëlal responsabilité boppam nee nañ tiré ci journaliste yi moo indilee fii nañ waxante dëgg waaye nag ñun xam nañ ko xammee nañ ko moom mun nañ ne kii moo def li nu mel jëlul vaar dem di xool ku nekk gis na li nu mel sama naataango ne ah lii wane ni ni daanaka ñun Sénégal xamatuñu euh, fu ñu ma kii di Babacar Diop docteur Babacar Diop ak yeneen naataangoom étudiant jot nañ leen libéré waaw Guy Marius Sagna moom nag mi ngi desati ci kaso bi. ñu laaj sama naataango la tribune lan moo xew mu ne ah dañoo bénéficier liberté provisoire journal L'As bi mu jëlee parole ne ah lii de wane ni ni SAES daanaka moo de pression gars yi bàyyi waaw syndicat jàngalekat yi nekk supérieur que ñoom ñoo poussé nguur gi mu cédé looloo payé looloo tax kon nguur gi séddee bàyyi euh, kon docteur Babacar Diop ñu wax ci Luc Nicolaï moom nag xam ngeen temps yi dañ ko jàpp moom ñu jàpp ko yóbbu ko ci prison sans lui waaye nag depuis démb commencé na lu ñuy woowee grève de la faim waaw bañ lekk bañ a naan ngir wone ni d'accordul nuñ ko transféré ci prison sans lui ñu laaj. sama naataango lan moo tax moom mu ne buggul loolu mu entamé grève su la ne waaw moom Luc Nicolaï promoteur bi dafa jàpp ni amul fa mbokk waaw buñ ko yóbbee ci prison saint daanaka dina fa tumuranke moo tax ñu ne dañ ko indiwaat mbuur foofu la xam pour ngir ñu mën ko toppatoo sama naataango ne ah lii de wane ni daanaka kii di promoteur bi mi ngi joué son va waaw ndaxte cour d'appel bi dafa ne ñoom dañ ko war a jàpp yóbbu ko ci prison sama naataango ne kii di promoteur bi daanaka génnul ci euh, gut maître Babacar Cissé bokk ci avocat am euh, ne lii nii dur pour lamb la daanaka lamb ji dina ci lot bu baax a baax kii di Makhtar Cissé Mouhamadou Makhtar Cissé ministre des énergies du pétrole wax na ci journaux yi waaw moom Makhtar Cissé bi ñu jàpp ni bokk na ci lu yàq seen lekk temps yi daanaka moom nag ñëw na au front ñu laaj waaw xam nga laal mën nañu waxante dëgg man nationalité exclusive Sénégal exclusive Sénégal laa am waaw kenn gënu ma bëgg réew mi xam nga moo tax man soo gisee ñu yokk prix électricien yi daa fekk mënatuñ ñu daal ndaxte pétrole moo yoruñu ko pour le moment en tout cas dañuy jënd ci biti ci biti mu boobu bu fa yokk waaw ah, ko yokk dañ ko yokk naka noonu itam boo xoolee dollar bi day fluctuer des fois mu yéeg des fois mu wàcc nag loolu tamit day jouer ci prix yi moo tax ñun ñu ko ndaxte mënuñu ko supporter ñu jeexale sport ak sunu lamb mi xëy titre ci sunu lamb d'or 2019 daanaka tey la ñuy joxe trophée bi ci samedi bi daanaka ci yoof journal bi ne demain soirée de fête à Yoff Reug Reug Bombardier Tapha Tine Baboy Forza ñoom ñëpp ñu ngi leen di xaar Abou Cubalo Aïda Samb ak Fallou Dieng ñoom ñooy assurer spectacle bi ci stade quotidien mondial des clubs final Flamengo Liverpool a 17h30 kii di Sadio Mané ñu koy xaarandi bu baax a baax foofule ngi mu prier journal record moom itam wax li nu mel ndaxte sama ne ñu ngi xaarandi kii di Sadio